asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu fattaahu wahaabu yaa rasaaqu yaa maliki liftahu wahabliya warsuqni kunil aana dayqi asilan ajilan bil bishri mahmaradin xata uqima li dini laahi arkana yasir juu'i li tuuba waxmini waqini adal wara wa tudib li samaskana laka sama wal aradi wal hawaau bila musharikin leerut man shikubana ajib wasalli bislimin xasanati muhammadin wa tahab li faiqan bana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin amin asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñi ngi siyaare ñëpp rawatina waa kuréel dayra boobu tudd dal manasil dal manasil yi ca Touba Niis code de daris code de sir ci njiital sëñ Moustapha Joxaane bu dee ci ca commission culturelle ba sëñ Ibrahima Sëy ak sëñ Moustapha Diouf ak ak ñi ko àndal ñëpp ñu ngi leen di siyaare ci bis bi nga xam ne bis bi bi nga xam ne mooy dëppoo fa yéen 6 6 décembre 2020 ñu ñu war cee waxtaane kër sëñ Tuubaa goo xam ne dañ koo bëgg a taxaw foofee ca Nice Côte d'Azur ngir saytu ci saytu ci njàngalem sëñ bi ak jàllale ko kon maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoom laa bokkal ndaje meeg waxtaan wi ak ñi ñu seetaan di nuyu it Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne kon fu waay di yëngu ci yoon wi ci toolam. maamam ju tedd ja sëriñ bu tedd ba Seexna Xadim ci ci nga yëngu xam naa kon waa Daadal Manaasil kon waxtaan wi mi ngi war a jëm ci al marakisul xadimiya fi ardil mahjar al usus wal masuliyat al kubra maanaam kër Sëriñ Tuubaa yi ci diaspora bi fondement yi li ko fonde lan la ak ak ak li nga xam ne moo gàllu ci ci ci sun dodd yi muy responsabilité yu mag yi xam naa buñ de tàmbali dañuy jëkk a tàmbali kër sëñ Touba baat bi Cheikh Mouhamadul Mourtala radiyallahu anhu moo ko moo ko initié woon moo ko ubbi woon woote ko waaye nag nee ñu ma su ma saa wax kër Sëñ Tuubaa daa wax naan kër lislaam kër kër lislaam lay wax ndax loola rek a wér Sëñ Tuubaa lislaam rek la du du leen kon kër kër lislaam googu nga xam ne la dal manaasil ñoo ko ñoo ko war a def foofee ca Côte d'Azur ak yeneen kër Sëñ Tuubaa yi foofu mën di ne kon ñu xam ne kon kër lislaam la waaye kon du kër Sëñ Tuubaa kër bu ñu nee nag kër lislaam mooy tax bépp julit fu mën a jóge bu bu bu jaaxlee man fa agsi bu bu soxlaa ci diineem dara bu bu dikkee man caa am lu ko doy. yaakaar naa kon fondement bi lan la kër kër kër Sëñ Tuubaa yi wala kër lislaam yi ci adduna bi ci diaspora bi Cheikh Modou Mourtala daa bëggoon mu nekk kër goo xam ne dañ fay dundee lislaam kër yoo xam ne dana mën a leeral nit ñi seen diine seen pas-pas ya dana dana leen mën a jàngal yarub lislaam ba ñu doon ay julit ba ku leen gis ñee leen ci seen melokaan yi ak seen jëf ya ak ak ak seen xalaatin wa kon loolu kon mooy fondement ba mooy liimaan lislaam lexsaan kër goo xam ne des na ko fa mën a dundee environnement bu set wicc boo xam ne ne Matlabul Fawzayni la ñuy dund nga xam ne xam-xam kon moo ciy jiitu xam bu ñu xamee mën a jëf bu ñu bu ñu bu ñu jëfee meññal ma doon asaada fi daarayni te mooy tax teg ëllëg kon kon moom ñetti was yooyu kon moom ci lay dox Sëñ Tuubaa dafa am ku ñëwoon ci moom njaarim di ko laaj naa ko musalatul xasaan yi de lan lay laaj sëñ bi ne ko musalatul xasaali mooy liimaan lislaam lexsaan boo ca saxee da nga am ay anwaar ak i asraar kon kon kon ñetti ñetti yooyu ci ci la kër Sëñ Tuubaa yi wala kër lislaam yi sëñ sëñ sëñ Mouhamadou Moutala radiyallaahu anhu initié woon ci yooyu lay dox yan mooy bii yi nga xam ne moom moom lay ciblé war koo jam yan la bokkoon na bokk na ci daara yi ci njëlbeen moom alxuraan la la lay doon gone yu ndaw ya yi nga xam ne mooy doomi mudu mudu yi mën caa jàngee jàng alxuraan jàng xam-xam mag mi nga xam ne alluwoom soreegul mu man cay wittiliku di di di ca di ca yéegal alluwoom gis naa si ngooño ca Italie ku kuñ ma wan ne ma kii day bu fiy ñëw période ijji te jàng na ba toll ci maqaama war nañ ma waaja loolu loolu kon lu lu am solo la loolu moom mat naa gën a soqali waaye nag kër Sëñ Tuubaa yi da dama gisoon bu yàgg ne war naa weesu loolu war na ko ma def ay centre de recherche centre yoo xam ne dafay leeral xel yi dëppale nit ki ak jamono jamono nga xamante ne xam-xam yi nga xam ne moom la jamono soxla woo jullit yi soxla woo ko war a mën a bokk ci conquête bi nga xam ne moo am jamono war a dugg fu ne war a ci war a dominer totalement adduna bi jullit ñi ñoo ko war a def ku ñuy wax ku ñuy wax xaatimi Mouhamad xaatimi ca Iran kate bi 1998 defoon na benn waxtaan wu am solo ab conférence ci CNN bu Amérique wax wa daal di wax ne jullit ñi day seen si théorie bi bi bi ñu jëm wala boog seekal bi bi ñu jëm maanaam léegi jullit ñi ñoo ko war a dominer ñoo ko war a jiite kon loolu kon lu lu mat a kon waajal la te te te waaj gi du lu may xam-xam yi nga xam ne moo war a dëppook jamono nga xam ne kër kër kër kër Sëñ Tuubaa yi wala kër kër lislaam yi dafa war a am daara daara joo xam ne bu ci gone gi génnee jàng diineem ñu def ko xeeti formation accélérée. muy mu mu mu ànd ak programme école na na na jàng xam-xam yëpp lu mel ne mathématique science matières yi nga xam ne dana ko may su su génnee mën a dem ci branche bu ko neex nga xam ne tey daara je bu fay génnee mën naa am bagu L bagu S ndax bagu L moom daanaka soxla duñ ko coow lu bari dong lay indi waaye bagu S xale bi am métier ma man dara. loola ko la kon daara jekkoon am programme mu école programme boo xamante ne njàngaleem si sëñ bi mooy mooy fondement ba waaye nag mu ubbiku nag ci ci àdduna xam-xami àdduna yëpp alxuraan bi bi ñuy wax ne iqra dana dana jàng leen ñu ne ko lu ñu lu ñu jàng mu mu ne déedéet loolu yitteelu ma bismi bismi rabbika rek ma yitteel la ngay jàng lu lu man di doon nay ngir man nay nay ngir liggéeyal ma ñu ne ko ñu ne ko waaw doo am benn xam-xam boo xam ne da nga ko tudde mu ne ali si xalax xalaxal insana min min alaq mu ne xam-xam bi nga xam ne moom lay jëkk indi mooy xam-xam bu ñuy wax biologie maanaam maanaam nit ki nu mu nu muy sosoo ci biirum ndeyam xam-xam boobu daal moom mat naa jàng moo moo ne alxuraan de bi bi muy wax xam-xam yi nga xam ne moom la ñu war a jàng tuddul fiq de tuddul tawxiid de tuddul yooyu ndax ndax yooyu moom dafa mel ne maanaam obligation la boo xam ne moom jërul wax nit ki moom faaw mu jàng pas-pas xam yàlla mooy kan jox ko jox ko gëddaam kem talay kattan jox yonent bi alayhi salaam gëddaam kem talay kattan su noppee nag jàng li ko alayhi salaam andi woon ci ay ndigal yoo xam ne yàlla ko ko teg muy ak jaamu boo xam ne guddul julli woon nata asaka xeex xeex yu mel noonu añ màkka yooyu moom xam-xam yu neex ci xam la yow mi spécialisé wu ci ci diine wala yooyu. yow yooyu boo ca xamee ab yóbbal doy na kon école ba kon daara ja kon yor formation bu bu bu mel noonu loolu loolu benn xaaj la ci benn pàcc la ca liggéey ba beneen beneen ci xaaj bi nga xam ne moo ci topp gën caa am solo mu nekk centre de recherche boo xam ne da ngeen di wut ay ay ay cadre gaa yu jàng théologie théologie mooy xam-xam bi nga xam ne mooy jàng diine yi jàng yahudiya nasraniya jàng jainiya jàng yoga jàng jàng courant yi nekk ci adduna bi yëpp maanaam nga xam communiste capitalisme lépp mu mu- mu jàng ko kooka bu dikkee mën a waxtaane sëñ Tuuba mën a waxtaane lislaam ci tubaab bi mën ko mën a jàllale mi- message su sëñ Tuuba bi nga xam ne ko kon su su su soobaa cadre bu bu bu mel noonu am nañ ku ñu wax sëñ Abdou Karim Silla la tudd sama dëkk dëkkandoo fee sa sa sërub Cheikh Mamadou Lamine Baara la théologie la def ku mel ne man ak moom yaakaar naa ñi def théologie ci yoon yi moom fi ñu toll nii bëriwul xanaa mën naa am gone yi yi ñëw yaakaar naa ndax théologie muy philosophie gaa yu bari dañ ko ragal ba léegi si maa ngi koy laaj ceer ñoo ñoo am na fa benn xale bu bu ne ma ma maa ngi koy def waaye xale yu bari dañ ne dañ ko ragal ndax dafa jafe ndax li nga xam ne xel lay wax ak it cou- courant yu bari yi nga xam ne da nga ko jàng courant yi xalaat xalaat yu wuute yi ci adduna bi boo di si moog lépp da da nga koo jàng yooyu kon dafa aje coona moo tax gone yu bari kii ñu ko waaye nag yéen ngeen ngeen wut boobaa sax su ngeen amul sax su ngeen soxlaa sax ab lim dana dana ay sax yéen ngeen daal di am xalaatu bur si ay xale. de de- dem ca Égypte Égypte jo jo ko fag da dayra ba ansaar ba fa nekk ni leen kat dañoo bëggoon ku jàng ku ku def théologie philosophie. bu- bu- ñu ñu di ko boursier di di ko jox par weer nangam par par par ñetti weer nangam noonu NASA ci Amérique def ba dañuy dem ci école yi meilleur yi nga xam ne ñu ñu ñu gën a briller ci ci ca école ba ñu ñu ñu jox ko boursier ne ko nag soo noppee dañ ne la boursier nga àggale sa sa sa sa sa njàng soo noppee ñu jël la loolu it koy war naa bokk ci xalaat yi ñooñu bu bu bu ñu dikkee danañ mën a leeral sax muudu muudu yi. da- dañ gën a may yëkkati seen niveau am na ci Italie ab dayira boo xam ne woon nañ ma ci fan yee a waxtaan ne ne ndax day day dayira italiens yi nga xam ne da- dañoo dugg ci murid gi ñu ñu ñu ñu waxtaan leen seetlu na ne ñoom mënuñoo dégg li nga xam ne sunu borom xam-xam-xam yi xam ne fiq la njàng rek li ñuy wax ñoom mënuñoo xam waaye waaye bu bu- bu dee man ñu ne jumbul théologie bi bi ma génnee falsafa bi may wax ñoom ñoom danañ ca mën a xam dara loolu kon. Sëñ Tuubaa yooyu kon dafa aaje ñu génne théologie ay jànkati arab nag la ñu doon théologie ndax ndax boo boo ko defee ci ci ci français li li may wax doo ko jàng waaw nga xam ne noonu danañ jàng falsafal islamiya falsafal xarbiya danañ danañ jàng Kant Descartes Husserl Kierga- Ki- Kiri gi gi gi Kierkegaard maanaam léegi Martin Heidegger danañ danañ danañ jàng. philosophie yi tubaab bi yëpp ba noppi jàng nag Descartes rek maanaam léegi Simon de Beauvoir bari na daal lépp la la lañ jàng bu ñu noppee nag noonu jàng nag lislaam jàng Xasaali jàng Farabi jàng Kindi jàng nangam jàng Faxruddin Razi jàng Ibnu Sina kon noonu noonu su su boobaa danañ mën a def compé com maanaam xawma mu xaarana lënkale diggante ñaari ku mel ne Descartes ak Xasali ca dut méthodique kan moo ci jiitu Xasali moo moo jiitu dut méthodique alaman kas me mën a dalaal Hollande booba bi bi fa Descartes di nekk booba ca ca seen bibliothèque bu mag ba bu bu buur ba booba ma nga fa Descartes amoon na accès ca téere ba kon léegi kon kon xamoon na kon ne dut méthodique am na kon léegi imam Xasali kon léegi mu moo jiitu ci dut méthodique chekul manhaj yi dana danañ xool ba xam loo loolu Xasaali fan la ci jaar Descartes fan la ci jaar ku ci raw morom ja lu koy yokk ci ci ci ca liggéey morom ja danañ ñëw ci sa sëñ Tuubaa so so so soobaa justification méthodique sëñ Tuubaa dikk na moom seen seen ginnaaw indiwaat leneen lu yees moom moom waxu du du méthodique waaye mi wax justification méthodique te mooy di attaqiqul manhaj yi sëñ Tuubaa loolu lan la ci jublu lan la lan la ci ban avancement la am ci ci boobu xalaat. naka naam yooyu kon ku génne théologie ku ku def falsafa mooy man loolu su su boobaa centre bi ñoo ñoo fay ñëw man man bokkuma ci man moom man moom man moom du ma ko man mu mu moo tax ma ci ci ma bëgg ku mel ne Oustaz Abdou Abdou Abdou Karim Sylla mag ak ak ñeneen xale ñooy ñooy man loolu ndax man maa ngi fii ci Paatar ni ni ngeen gisee gisee nii yaakaar naa ci image bi daaraay joo xam ne Faydu Akabir Salihin la ko tuddee duppee ko daara ji Sëñ Tuubaa mujj joxe ci ci daara yi laxasaay ca ci yéen jolof mu la ko tuddee daara yi jàng njàngaan la alxuraan ak xam-xam ak tërbiye ci tu- tur yàlla kon man du ma am jotu man di dem fenn di defi leneen ndax ndax dund ga gaa ngi jeex kon moom kon kon kon moom ñooñu su boobaa magal day ñëw magal wala ngeen def ay forum jox tubaab bi téere sëñ Tuubaa yi bind ay étude scientifique ci sëñ Tuubaa nga xam ne kàngam yooyu ne ngeen ne ne ci centre bi ñu koy bind ngeen publier ko tubaab bi yër ko dikk nag war a toog ñu war a def maanaam léegi ay ay ay plateau yu yu yu mag ay colloque yu yu mag yoo xam ne ne ci xam-xam lay wax sëñ Tuubaa mi ngeen di wax lan la indi ci adduna bi lan la fi beesal nangam nangam maanaam naa maanaam maanaam yan yan xalaat la fi indi yu bees yoo xam ne amu amu fi woon wala boog ban avancement la am ci xalaat yi loolu kon su su su boobaa loolu dana mën a am waaye nag loolu nag ñoo ñi nga xam ne ñoo koy def faaw ngeen yore leen seen lépp. waaw maanaam ngir yàlla ji ngir Sëñ Tuubaa am na waaye kooku nit di doon nit koo xamante ne day lekk day naan université bi fii jamono Sëñ Saliou bi ko ubbee ñu ne ñu ne ñu fay jàngale duñ fay dara sëñ Mur sëñ Murtala ne xanaa kon ñoom ay malaaka lañ yaakaar naa yaakaar naa duñu malaaka ndax ndax ndax mu ñetti téeméer nangam lañu woon mujj nañ doon juróom fukk mujj nañ doon fukk yaakaar naa mujj nañ xanaa da daanaka lépp jeex ndax ndax loolu loolu du ma nekk. kon su boobaa ngeen boole ci ci ci ci liggéey bi di bind ay téere ci Sëñ Tuubaa dama ko waxee woon noonu téere scientifique loolu loolu borom xam-xam yooyu ñoo ñoo ñoo koy bind buñ ko bindee ñu publier ko fexe français italien allemand Europe rek làkk yi nga xam ne moo fa moo moo moo fa not espagnol portugais lu ne ñu daal di ko ciy mool bu bu buñ ko ci ci ca moolee tubaab bi xam Sëñ Tuubaa sëñ Moustapha Diatara nee na dafa dem Paris ci benn bibliothèque gis fa téere yi Baye Niass mu laaj sëñ Tuubaa ñu ne ko ñu ne ko néew fi mu ne mu ne ci tax nee na tubaab ba ne ko yéen ñi ci am intérêt yéen a ko fi indi wax ju am solo la joo marqué la noonu murid yi am nañ xaalis waaye dañoo amul wax yoo conscience maanaam xamuñu adduna bi dem naa Italie niis googu ñu ñëw naa fi ren onze loon xaw ma ñu ñu ñu ñëw naa Nice ñëw naa Paris dem naa Espagne Italie Allemagne waaye mudu mudu yi maanaam seen vision dafa dafa gàtt dafa gàtt kër Sëñ Tuubaa yi bari na lool tabax ay kër rek ñu ñu jàngale alxuraan jàngale maqaama mu jeex loolu da gàtt na loolu moom loolu moom adduna bi su ngeen xoolee suñ mbokki naar yi suñ mbokki asiatique yi pakistan yi pakistan yi seen seen seen école yi yi nga xam ne ñu ngi koy tabax ci Europe seen jàkka yi ni mu dundee nga xamante ne jànkatu tubaab bi nga xam ne dafa dugg ci islam dem jullee ci seen seen jàkka yooyu mooy mooy gën a ubbi ko ci moom di jullee ci jàkka yi amuru muru amurit waaw ndax murit bi daanaka li muy wax dafa terre à terre boobu kon léegi faaw ñu xóotal loolu nag moom kon fa faw ngeen wut nag projet projecting ni ko Heidegger di waxe projecting ngeen seet ba xam yéen Sëñ Tuubaa man ngeen bëgg a jàllale moo ndax Sëñ Tuubaa wolof mi la sol ay mbubb yu rëy yu diis wala Sëñ Tuubaa xalaat bi ngeen bëgg a jàllale Sëñ Tuubaa folklore bi ngeen bëgg a jàllale wala Sëñ Tuubaa scientifique Sëñ Tuubaa penseur ba xalaatkat ba sëñ Tuubaa suufiyanke bi sëñ Tuubaa bi mi nga xam ne andi na lu bees ci tasawuf ci lu ci sunu xalaat sëñ sëñ Tuubaa bi nga xam ne andi na ay ay ay xalaat ci philosophie yu bees yéen ban sëñ Tuubaa ngeen ngeen bëgg a jàllale Europe. kooku moom yéen a koy définir yéen yéen ay xool ba xam yéen définir seen objectif fan ngeen jëm lu nu nu ngeen ko bëggee loola du du yéen laa wax ne yéen a koy def da ngeen di wut ay ay borom xam-xam ñu jàngatal leen yéen fu ngeen war a dem. tututuwaa bi pays yu développé yi noonu la ñuy def dañuy wax ay ut ay expert expert bi ne ne ne la loo bëgg ne ko dama bëgg benn si citoyen type de citoyen sangam mooy le citoyen sangam day boo ko bëggee da nga koy jàngal nangam da nga koy yar ci nangam kon de da nga am type booba da ngay da nga bëgg a tabax kër architecte bi ne la kër goo bëgg nga ne ko xanaa ñeenti nekk te amul saal mu ne la waaw xanaa daal na na féex xaar ngelaw li dara ko mën a jaar fu ne te du ma lor askan bi ne baax na moom mooy xam ba xam sa sa espace bi ñeenti néeg yi nan la ko fiy defee defin woo xamante ne leer gi danañ ci dugg jant bi di dugg dugg ko génn te teru teru tàng dana am aération te du la sonal moom ngelaw li kooku architecte bi koy def kon expert bi bi mooy def loolu. loolu ko kon yéen war ngeen a def ab étude scientifique ci projet kër gi léegi si tàmbali ko léegi loolu nag moom yéenay yéenay définir yéen seen i seen objectif yi ban ban sëñ Tuubaa lañ bëgg a jàllale ban murit lañ bëgg a waxal ban tubaab lañ bëgg a jox message bi tubaab bu jàngale bu jàngut tubaab boo xam ne dafa spécialisé wu ci ci ci ci maanaam léegi théologie wala philosophie wala kan kan nga ngay jàllale message bi ab économiste da nga def étude ci Sëñ Tuubaa économie islamique wala finance islamique Sëñ Tuubaa lan la ci indi lu bees ñu wut ay économiste ay murit yu jàng diine génne asar boobu am na am na am na économie ñu ñu ñu jàngatal ñu ñu sëñ Tuba rahimahullahu borom Walfadjri nu mu tuddati. Sidi Lamine Niass rahimahullah defoon na fi ak màggal benn plateau ci diine ak jamono bu am solo ci économie bi juddu ci murit gi. yaa am na économie bu bu bu juddu boo xamante ne ñu ne war war nañ cee def ay ay ay gëstu ndax ndax existé na ba ba ba noppi loola loola. ak magal benn kenn ci état bi mas naa wax Rawdu Rayaahiin daal di ne kat magal gi trois cent milliards trois cent mille milliards dana yëngu ci ñetti fan yi daal di daal di ne bis bu bu toll ne magal gi ci économie Sénégal amut daal di ne yéen war ngeen ci def ay étude gëstu leen ko loolu loolu kon moom loolu kon moom trois cent mille milliards. ñetti fan mu yëngu ci économie réew mu yëngu loolu moom sëñ bi kon lu am am njëriñ la boobu dimension bu am njëriñ la boo xamante ne kooku bindoon jox ko tubaab bi ñoom dana leen amal njëriñ ñu xam ne kat sëñ tubaab africain ba dëkk fee moom aw nitam mouvement bi bi mu créé créé génnee na lii résultat bi nga dem ci tasawuf sëñ Tuubaa xamul tasawuf goo xam ne da ngay dugg xalwa doo génn tasawuf gi gi mu jàngale mooy boo doon ab teer am ku soxla woo mbu mu xotti ko war koo ñëw da ngaa war a génn ci xalwa ba dem def ko duggaat sa sa xalwa bi kooku sëñ Tuubaa moomu mystique boobu nañ ko jàngal tubaab bi demal ci travail liggéey sëñ Tuubaa xamul travail li mu xam mooy kasbul xalaal nga xam ne moom moom léegi wut lu leew lay wax moom liggéey moom moom ñëpp koy def. moom li mu soxla mooy ci jullit bi na ngay wut lu lew kooku nañ ko jàllale jàllale ko tubaab bi ne ah tubaab de moom xamul liggéey ñu ah lu mu xam ñu ne xanaa wut lu lew benn tubaab boo xam ne suñu tubaab ne ko noonu day buñ la jëkkoon a xam topp ci sa ginnaaw ndax ñun tubaab li ñu bëgg ci nit mooy liggéey te mën ngaa liggéey loolu nit ba noppi muy bég léegi luy loolu xel koom suñu fa mosaa dem xel koom bu ñuy dem day neex lool buy jeex ñëpp a jaaxle bu ñuy simpi simpi suñu xayma yi ñëpp na day mel ne ëpp dëj la xel koom neexut te yow xel koom moo dàq sa kër moo dàq lépp lépp sa lépp moo ko dàq booy jeex mu naqare lu suñ suñ tubaab moomu loolu loolay xidma xidma xidma suñ tubaab ñu jël xidma daal koy daal koy jàllale. xidma kullu xarakatin faa'ila zaadu qiima maanawiya qasdi tabia tuwaa day fi xitaabi insaani tijaahal kawni wal xayaat shukran lillahi fi ariyatil obadati xaqa mooy action boo def ngir jëmmal. gëm goo gëm yàlla loola mo mooy xidma waaw léegi loolu ñu jàllale ko ngay loolu te mas naa ko wax ne président Macky Sall bu bu jëloon xidma na na xëy ne rek sëñ Mountakha daaw bëgg de nga liggéeykat yi nekk ci état bi yëpp day ay murit nañ ma may seen demi weer loolu ñaata weer la nañ ma ko jox addiya addiya xidma la léegi ñaata ñaata ñaata milliard la at muy jot mu ne ko nañ ma ko may kees boobu fond boobu lu muy doon ci ci xaalis buñ ne woon màggal Tuuba kuy màggal si nañ te te teg ay poste yoo xam ne kuy màggal si na nga joxe ñaari téeméer bépp borom kër na joxe ñaari téeméer léegi loolu loolu muy addi sëñ Tuubaa addi sëb sëriñ nag moom ba demee jox ko léegi ñaata milliard la- lay doon lé léegi économie boobu nga xam ne yow waa ji day bég moom ci joxe ko loolu dañ ko war a jë- jàllale ci toit bi toit bi ñoom ak jàmbaar lañ bu ñu bu ñu bu ñu la laajte woon rek ñoom danañ danañ ci def ñoom ay études yu fort kon su- ko- kon loolu kon yaakaar naa kon ci kër Sëñ Tuubaa yi mat naa baxel man ngeen di amaat be- beneen projet projet boobu sax man xam naa xam naa da da daa rëy sëñ Sam Mbaye nee na benn tubaab war nañ ko benn TS ci France Paris yaakaar naa la wax to tubaab ba li mu bind mooy turi turi turi xasida yi sëñ Tuubaa yi ci la def TS yéen dem leen dem leen gëstu yu TS boobu jël ko daal di da daal di koy def seen fondement liggéey ci xasida yooyu yëpp ngeen dajale ko fenn numérique de- def ko ci internet bi xasida yooyu yooyu yëpp ñu gëstu ba xam ne wér na ñu teg ko fi nga xam ne seen waa kër li xasida yi yëpp bind na ko donc projet la projet scientifique la boo xamante ne nag doo jël jaama neex da ngay da ngay jël cas loolu français mënu ko jàngkatu arabe ko man projet boobu a- am na ci Amérique Amérique benn benn tubaab yéefar la de projet boobu ma ma nga ca moom dajale xas xasida yi së- së- sëñ bi benn siif ñëw na fii maktabaat bi ba teg la lañ doon jàngal nee na wax nañu ne ba wan nañu liggéey ba lu lu lu mel ne lu lu lu mel ne asmaa u tahlil waa ji daan daan wa wa mi maaju jun sabu li li seex asmaa u tahlil arab lay wax de arab ndax orientaliste la kon yéen yaakaar naa kon projet bi dëgg daal kon mooy bañ a nekk kër Sëñ Tuubaa yi yi fi xewoon yooyu moom yooyu moom dëgg yàlla moom jë jërut jë jërut yàq yàqaaj moom loolu loolu moom yaakaar naa moom. kër sa kër sa bu dee kër Sëñ Tuubaa yi fi nekkoon dong ngeen di def moom dëgg yàlla ab roq bu ndaw boo xamante ne ñeenti ñeenti ñeenti néeg lay am sëñ daara ba di ne fee donga yi ne fee bu bëggee noppalu noppalu yaakaar naa loolu loolu doy na ci waaye kër Sëñ Tuubaa kër centre boo xamante ne dafay leeralal xel yi kon moom boobu laa bëgg ngeen ci ngeen de def ko ngeen initier loolu mu mu tàmbalee fii yéen mu mën a yaatu kon ko ko xanaa kon day mel ne waxtu aju moom boobaa ngi jege kon yaakaar kon ma ma mas na ko të- të- të- tënk të- tënk ci foofu lu ngeen ci am ci ci ci ci xalaat incha allah buñ ko diggaatee yéen baax na di di di barkatoo kon kon ñi ñi ñi ngi siyaare waat daayira bi Ladal Manaasil Touba Niis Côte d'Azur di siyaare waat sëñ Moussa Joxaane mi nga xam ne moo ko jiite bu dee ci kii lañ na saqafi bi mooy ko commission culturelle bi sëñ Ibrahima Sëy ak sëñ Moussa Diouf mi nga xam ne moo doon jo jo jokkoo ak man ak ñi nga xam ne ñoo ñu di déglu ñëpp di seetaan salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh